Tap. mom ci walu combat bi nga xamne mom la mujjé jogé na la dundé victoire bi ak na la ko dundé ak wa ko ñom quoi jaxaw na salam alaykum bismillah bismillah ina wala yalla jefe borom touba jefe borom touba jërëjëf ba mu khadim basul ma ngi ziar sama wa ñu ngi sama yaay ma ngi nuyu bu baaxa baax sama papa ma ngi nuyu nga ñaanal ko du fan ñu ngi sama wa koñ ñom lamine ñom pogo ñom day ko do xam waaw euh, gars yi maa ngi leen bu baax ñoom Fassara waaw di ko nuyu ñoom Marre boo ñaa waaw di nuyu Eumeu Sène koy saw bu baax di ko ziar ko jël nuyu ñu ma taxaw si a wér a wér sama waa Igri comme ça maa bu baax a baax a baax waaw kay. Diakhou dama la bëggoon laaj Diakhou jour bi nga demee bëri si dem bëri arène sa sa première victoire nan ko dundee yow. waaw muy muy lu neex tamit muy loo xamante ne xam nga daanaka fàtte nañ ko sax ndax defaguñ dara waaw làmb moom ñun bu si la ñu fàtte nga mu tamit loo xamante ne eh, liggéey nañ ci waa làmb dañ cee daj lu métti nekkul làmb yoo xam ne dañ koo préparé benn semaine liggéey nañ ci lu ndax combat bi daal eh, daanaka bu ñu bëree. laa bëgg daa wax combat bi semaine la yàqu woon quoi. semaine loolu bëri mu des semaine ñu yàqu gars yi ko daanaka def na weer. at. Mm-hmm. dëpp nga at dëpp nga yaa ngi préparé combat bi. waaw ma nekk si làmb ji di préparé. mais même mbër même mbër bi la jox rek moom la la joxe. waaw même adversaire même adversaire bi la parce que ma gis ne euh, mbër bi nga doon bëri seex yi ki nga wax ne dama nekk tëgëj dama gis ne kooku yaa ngi bëri mooy doon jour combat ñoom guy gee kii noonu. waaw si doon na si jo euh, euh, guy gee kii guy gee nees. waaw waaw moom doon si bëre. waaw ma gis ne tamit ma gis yow si combat bi ni nga ko préparé ni nga si sonn ak ni si daj. ma gis tamit bi ngay génn mbooloo bi la topp. ma xool jaxaw ak sa premier combat di nga amee defe te nga dund victoire boobu. yow léegi fan la la war a yóbbu. waaw fu ma war a yóbbu mooy xam naa ne ñam naa ñaar hmm. waaw. loolu mooy may sens xam fi ñu jëm te tam boo teree ñëpp leen ni defet bi da nga xam te boo boo ñëwee ñaari defet di nga xam war a teg sa tànk waaw di nga xam di nga ko yokk mm-hmm. te boo doon bër bu ndaw tamit xam xam foo xam ne incha allah di nga bëgg nga fa yegg waaw yéen ñi da ngay bàyyi nekk si làmb bi waaw di def comme gars yi nañu sonnee chaque jour ñoom la bi ñu pour chaque jour nga demal entraînement chaque jour fu ñu combat fu ne la génn xam nga nekk ci affaire foogoo tamit billaahi booy jigéen waa kon xale yu ndaw yi non naa taxawaay bi quoi parce que Seydina man damay mujjee su ma génnee damay mujjee am gerte billaahi taxaw nañu bu baax a baax a baax ci làmb ji waaw donc gis nañ waaw gis nañ parce que gis nañ ni nga waa kon koñ préparé combat te gis nañ tamit par rapport combat bi yow ni nga gis sa premier combat bi ni ko préparer ak sa deuxième combat bi c'est fa deux parce que gis nañu jaxaw léegi affaire yi amna changement gis nañu ci combat bi ba gis ni len mbolo bi topé comme moy manam yow def war a si waaw comme li nga wax rek dama mom yalla mo xoy dogal mais waratu ni ko wax yalla mo moy dogal waaw yalla mo mu ngi so djeb rek inshallah bu neex suñu borom day mais ñun làmb di mom ñun soxla tuñu defar quoi ndax bu ñu gestoo suñu ginnaaw bu ñu gisee paa yi maire ñëpp a ñuy ñaanal lu ndaw sax bu ñu xewlee xam nga ñëpp taxaw ñaanal loolu tamit xam nga day nga ñëw am xam nga am combat si borom dafa la nga ñëw sa waa koñ teeru la loolu dafa neex waaw gars yi ngay génn sax maire yi xam dañuy jooy billaahi wallaahi loolu it mën xool nii loolu tamit day tax ngay reyante loolu nag day tax ngay reyante billaahi. mais mais mais mais combat bi fii euh, préparé si ngir wala kër Eumeu Sène nga préparé. waaw laa ma ji moom euh, date bi sama ménage kër Eumeu Sène la ma fekk. Mm-hmm. waaw fa la fekk fekk ñuy préparé combat Eumeu Sène bi. waaw daanaka combat bi mu deux semaines trois semaines daanaka waaw mu woo ma ne ma combat la waaw man tamit man ah garaawul daal mottali rek gouvernement daan dem nga. nekk si entraînement yi affaire bi ñëwoon ba pare waaw ma ne ko amul problème léegi mu def ma ne ko semaine beneen semaine ba ñu def ko. waaw gars yi ñu Pouloum xam nga ñoom Maral boo ñaa Ndiaye Sow gars yi tas ma def ma lu métti war na yàlla. bilaahi mbaa doon ne damaa daj tamit lu métti ñoom moo ndaw gars yi dañ maa entraîné waaye entraînement yu métti façon entraînement bu nekk entraînement bi ak Seydina Mohamed bilaahi moo tax lamb ji tiitu ma dara sama coach boxeur bi tamit maa ngi koy ziar. doon ñaanal jàmm bilaahi soxna soxna bi moom mbaaw la nekk mbaaw la nekk waaw chaque jour mu ñëw ma kaay muy wàcc mu ne ma ñu xam nañ dem bilaahi maa ngi maa ngi kontaan moom bu wér a wér wér barke borom jàmm léegi bu ñu génnee foofu jaxaw am na victoire am na dal jaxaw fan la ñu waaw jaxaw moom benn boy la rek mooy fi si làmb waaw nekkal na fi ñëpp waaw xam adversaire moom am na ñoo xam ne boo leen tëkk xam nga dañ lay dañ lay bàyyi xel yoon yi mais man maa ngi fi pour ñëpp ku ñëw rek ma bëri ak waaw mm, maa ngi pour ñëpp. waaw mais mais xam nga tey daan nga tey da ngay bëri nga say bor nga xam ne tey bu daan day toog plateau soxla naa diw war a diw nangam nangam mais yow am nga ñoo xam ne tey ñii sa xel nekk na si la boolee ñoom di nga bëri ak ñoom. waaw man daanaka sa làmb gi adversaire samay morom ak yëpp bëgg nañu bëri booy yu bëri boo xam ne bëriwul bu ma arrêté la booy yu commencé tërëf tërëf nga xam nga am na loo xam te yàlla moo koy def si ñun ñun suñu jëmm réew mi xam nga suñ daa daan di dem waaw loolu lañ ci sant yàlla waaw ñu ci sant yàlla baax mais booy daal ku ñëw baax na. waaw mais xam nga da nga ñu jaxam ku ñëw baax na xam nga tey boo toogee ku ñëw baax na yow yow mi si jëm boppam di mbër bu ndaw yàlla def keroog nga si victoire tey après yow sa xel sa am na suñu mbër la kii soxla naa ko. ca ca caal waaw ñu ngi leeral ak moom sunu combat semaine la def maa moom mu daaw mu delloo avance. moom moo delloo avance moom dox nañu combat moom mu wër mu bëre mu dee une semaine mu delloo avance. moom jox na ko avance jox la avance. waaw yàgg na. yow yow tey nga avance bi. yàgg na moom mu tey avance mu delloo avance. delloo avance. lan moo tax lan moo tax mu yàgg combat bi yàgg. ah maa xam. mu ngi fumb la. waaw mais xam nga combat bi tey bu yàqoo yow ñu mën ma di nga xam ne lii mooy lii moo tax combat bi yàqu. Ah. waaw mais xam nga nag yooyu itam boo koy ñëwee nekk waaw mais lu nekkul détail xam yëpp waxtaan bi. yëpp détail parce que xam nga tey am na ñu bëri tey xamuñu woon ne Diakhao ak Thiatou Foray seen combat fii la yàqu. tey ñëw nga ne carrément combat bi carrément yàquwul si man moo moo que tey ñaar ay adversaire man bëgg moo moo tax ma bañ a waaw mais Diafara comme si daan lan ci ci tur bi mu am la wala nu wala wala si lan moo tax yi ñuy gis moom parce que ku jóg mbër bu jóg rek na jox ma yoo xamante ne Thiatou Fora dafa gën dara si ndàmb te daanaka xam nga yow tey yaa ngi yow tey yaa ngi daanoo champion waaw yow yaa ngi benn combat nga am benn défaite moom tey ñu si ñaata combat. ñaata combat la def. waaw bëri na ay combat mu ngi combat. mais man léegi si may jël jël. maanaam waxuma yéen risque parce que benn combat nga jógee yaa ngi yaa ngi doog a daal. waaw instant yii risque mën nga jël kat ngay laaj instant yii si kaw. ku na ponkal bi man ponkal laa soxla. waaw mais ponkal dañuy diw diw ak du ah. hmm. yaa ngi toog di xaar arène. mais est-ce que yow bi nga xam ne gars yi ñu koy tëgg par mercredi chaîne yi di tëgg est-ce que yow pare nga ko dem pour compétition. yàgg na. da nga def léegi correcteur damay dem yëngal bi. lan la ko da nga ko da laay tax jug dem. lan la ko ko da nga ko baax. lu nuyu sama sama dëkk Jaxaaw. waaw nuyu bu baax foofu la nga tegee ko baax. waaw incha allah yaakaar la. tournoi la. tournoi la waaw man. da ngay bëri fekkoon sama saa yi mooy loolu dañuy tax jug. dañuy tax jug quoi. waaw mais tournoi la quoi. mais du du du combat boo xam ne nommé la quoi. ñun daanaka sax àll bi moo ñu xaw a kii. moo leen xaw a sonal quoi. waaw dañuy fu ñu dégg làmb yi tax dañuy tax nit te mbër yi ñu conseil tamit mbër tamit duñ toogee bu ne ma demal mbër xam nga waaw dëgg la arène neex na mais sa xam-xam dem mais dama gis si combat la dëgër ëmb seen bi bi combat bi passé ma gis sa benn vidéo yaa ngi dugal di commencé classe la dëgër est ce que loolu yow la war na yow surtout yow mi nekk mbër bu ndaw. comme dama gis ma tax gis. yaay ma expliqué yow ëllëg xanaa ñaanoo yàlla bëri la dëgër. la la dëgër la moom waaye ak ma bëgg la dëgër la dëgër la du dara. waaw mais xam nga du a da nga jàpp ne la bëriwul. non la la dëgër. combat mu mu yëpp ba ñu ñëw ci taxaw di santé ñu ñaar yaa ngi déglu xam nga tey dem nga ba dernier avertissement yow am nga moom am na 4 yow am nga 3 moom am 4 mais yow yaa war a ñëw soobu jeexal làmb mais yow boo demee téye sa bopp foofu avertis jeexee mais nga dëgg ngeen mën a jox victoire mais naa am kenn mësul gis ñu bëree noonu waaw mais dama ama seen man seen seen bu ma jàngee si combat bi bi muy bëri balagee bi muy bëri gërëm gërëm boobu la nekk boobu la boobu nekk mbër boobu la mbër bi ñëw mais yëpp mos a ñëw. ok gànnaar gi. non non. c' est gànnaar gi ngay wax de. non sàmm xaar ma. waaw non sàmm xaar champion la ñaanal ñaanal yàlla nga nekk champion bu ko raw loolu la ñuy ñaan si si la. non loolu allah. loolu la ñuy ñaan yàlla quoi. ñu ngi ci bàyyi si waat xam nga. waaw waaw. mais mais mais man si classe bu ne classe man si jëm boobu moo tax ma ne la loolu soo suñu loolu sama rôle loolu moom tuuti ma si moom. waaw waaw ndax foofu am naa fa ay adversaire. am nga fa ay adversaire wàllu ko. waaw bëri. moo tax tuuti ma ko. ci doof da ngay def ragal loko quoi non non man duma triser quoi yow la rek day bu la ko joxe la nga dana bëri mom bu nan bëri bu neex nan da ngay bëri dara yow mbër mo xamanteni nee nga li téy boppam nan ban stratégie ngay jóg bëri la nga ne kii war naa ko mën nan xaam boobu muy téye boppam laa doon def laa ko doon may yow da ngay ñëw toog si kaw bi dëgg moom comme mbër mu nga comme mu xel mu nga daanee waaw mais bii la mu dafa loolu wax ji. waaw non mais si defee lu jóge amoo si defee lu jóge amoo mi ngi jóge si defee lan la ngay jóge si victoire. diwul revanche. waaw waaw mais diwul revanche mais bu bu indi revanche. ah dama seetlu bu indi revanche xam nga léegi si defee lu jóge. Hmm. kay jóge si victoire kon man pour ma lancer waat damay ñëw gëdd sa waay daan ko kon ni ma ko daanee woon. non non du def loolu. na la def. day déglu saa xam nga léegi tey téye la boppam mu jël si defee mu teg la ñaari defee. waaw. mais defet yooyu nekkul defet. waaw dafa defet defet defet la. defet daa wute. waaw ah, comme nag. ah yow tey jaxaw yaa ngi ci làmb ji tey nga am genre genre defet bu demee noonu nga boobaa kon du de kon yow du de kon kon du victoire si yow quoi. defet yooyu moo sax si loolu quoi c'est vrai. ah hmm. defet dafa war a da nga war a ñëw jàll ko daan ko. toog si kawam. daan ko toog si kawam. monsieur damaa am si salaam rek comment njëkk a ba ëmb seen combat yoo xam ne fii gis nañ ko si làmb. mais ëmb seen mënu ko gisee loolu. waaw loolu mosul am. waaw lan la gerte lan la gerte moom bi mooy kaaraan kaaraan victoire bi koy joxe noonu. non da ngay gis nga doo ko jox victoire bi mel noonu. non moom booy naa. non boo boo boo yaa dafa daal. si biir kii bi la nga joxe. victoire bu logique. waaw mais yow yow victoire victoire rek. yow jël kii rek retour victoire victoire rek. xam nga tey bu ñu waxtaan mais victoire victoire la wax parce que ma gis nga dugub wax classe yuuxu tàngal nangam naan deuxièmement loolu mënu ma dem te du ma la ko expliqué jaxaw ñu ngi est daa bëri lan moo ni loolu lan la. waaw xam nga rek ñi xam nga rek man moom man maay connaître tout quoi bari jàmm. waaw mais xam man gars yi ma war a mën sa sa sa jaxaw soo demee nga laaj ñu question jaxaw lan lay est du xew ni chaque jour ñu xam nga man dama la wax la pour lan. non dañuy toog benn place xam nga wéet nii. waaw duñ def dara ñun moom wasa bi daanaka ci lay wéete di xam nga buñ toogee def ni dara. Mm. ñuy toog. xam nga kër toog ñu waxtaan def ama mooy loolu quoi loolu tax ñu defee yenn essais yi mais loolu essais yi comédien yi def mbalak mais doo doo xamante doo gis loo xamante lu grave lu danger quoi ok mais jaxaw tey yaa ngi tey yaa ngi nekk ci benn balaa mbooloo jaxaw est-ce que jour dina bés na ñëw ma seen récupérer yóbbu nekk taa Chine yow loolu nekk na sa xel daanaka man moom doon si xam nga non dama ne woon dama bëgg nga leeral quoi. waaw benn jox sa écrir la moo na grand bi sa jarbaat bi tey yoon nga jëm mbër yoon nga tay mbër tey moom mu ngi jëm mag tey dégg la tey ndax bés mu ñaanoo ko bés mu ñëw mu récupéré équipe benn baraat yóbbu la tay si waaw ñun moom kenn xamul yàlla moom mooy dogal. waaw non xam nga yow yow yow buy ma xam nga yow yaay bëri te yow xam nga yow loolu li ma lay laaj yow wër na la yow loolu nekk na sa bopp yow

te nag ñun ñëpp dañuy ba bon. dangaa bàyyi sama mafia sama mafia bee. non man sama mafia bi. non dama lay laaj. Eumeu Sène bëggul ma jógee sax benn jëm. benn nga ko waxee de. waaw moom bëggul ma jógee benn jëm. waaw bu bu ñaanal la vaar la dégg nga. non vaar bu ñëwee rek mu xam ah. man moom maa ngi xam nga Père Faye tamit maa ngi koy nuyu. ñoom armée xam nga. Tafa booy ñaa maa ngi waaye école bi mu am benn balaag ñoom dañuy sonn si moom waaye Seydina Mouhamed daanaka lépp laa ko defee ñoom boo may bëree boppam boo ma mënut a bëree xam nga Sidi tamit maa ngi koy nuyu kus maa ngi nuyu jaara maa ngi safoo bu baax dañuy sonn si yow parce que borom daal. waaw man moom benn jour. ren kon yëg nañu seen équipe benn balaag borom yow yaa si njëkk bëre la. ok waaw. comme benn combat boobu ngeen am. waaw mu ngi am. am na aussi am na booy yu pare moom incha allah. am na yeneen booy yu bëri am combat foofu. Hmm. waaw comme yéen seen jaar a bëree. le deux juin. waaw ak ëmb ëmb kanama. nekk la fin la war a jaxaw ma dama bëgg si jëm boppam nga wax ma yow ñi nga xam ne carrément à part Thiatou Fora jaxaw si kaw nga wax yow nga si soxla. kaw booy ëff man booy ma bëgg a bëre booy bu a dañ booy kii bi sama làmb di paase ay booy bi dafa mun ay seex kërëb kërëb ay léegi booy bi dafa mun a bëre man genre yooyu xam nga dafay dundal. mais jamono sa sa koppar daanaka aussi sa sa as bi laal sa fas bi. Mm. non non man laalu. Mm. bëri ban la bëri rek. loolu ban la ba. waaw mooy dara. teg teg rek mu neex Sénégal gën kanam France jàddu ko ni waaw mu dara gaaw rek <laughs> gars yi kon li ko waxee rek yaa ngi dégg jaxaw wax nañ fi lu bëri loo xam ne wax na si diggante Eumeu Sène wax na tamit carrière am jaar-jaaram lu bëri wax na ko suñ jógee si loolu jaxaw jaxaw am na métier yaay jaxaw waaw jaxaw luy métier jaxaw mu ngi bois man jéem mooy sa métier lan ngay wax mbëri nga xam ne amuñu métier waaw mu doon loo xamante ne neex ko quoi mbër moom gëstul ñaari bu amul métier bu fi baaxee nga dem bu fi dëgëree nga dem fenn loolu man ma loolooy dunya quoi dunya wutal ñaari. mbéy mi moo judd moo judd làmb yow. waaw man mu waaw. nga juddoo ba léegi yaa ngi ci mu ci mu mu jéego waaw non làmb ji jiitu sax peut-être. làmb ji moo jiitu. waaw làmb ji waroon jàng te di ko boole moom. waaw te waroon jàng loolu. temps temps ñoom ñoom la ñoom koo ñaan. xam nga ñoom bëggoo. daa daa moom premier combat da ma fay ñaanu deux mille cinq cent. Lamine Irima surtout bi gaañ nag ma kaan dem Bamba gaañ. ak ñoom Koña ñoom Gaye. Bamba ba mu des téeméer waaye après xam naa laa la. Ah. kayiti kii laa di ay bulo ñu ko sama sol sama ji na damay dem lamb ji premier combat. voilà xam nga affaire yi fa la dem ba màgg may dund lamb. wallaahi gars yi répété xam-xam. maa ngi ay références yi ñëw gars yi waaw. wallaahi ma ñëw jaxase loolu léegi su ma defee lam gars yi dama du nii nii la nii ngay def waaw déggoo xamoo dara ba léegi nii wër na yàlla. ba yàlla def nañ ne yàlla yàlla ko boole si menuisier métier bi. waaw nga boole si menuisier. waaw mbër moom dafa war a am métier quoi. non yee. waaw mooy yoon mbër moom da nga war parce que yàggul. waaw benn temps la nii rek. da ngay def benn membre parce que ëllëg ñaa nga dem ba nekk champion la nga am xaalis nga bàyyi làmb ibi sa entreprise bopp boo xam mën na la yor. waaw waaw loolu moom sant nañu si yàlla bu ñu loolu tamit def seen euh, arène nationale bi bëri ba pare yàq seeti yow lan moo si sa xalaat booy juum nañ trop côté xam nga boo yóbbee sa mbër tamit xam nga yenn kii am kala ñaari ndaw yi day neexut xol supporter dafa métti waaw supporter dafa métti waaw loolu kese la xam nga supporter dafa dañu xë dañoo xër dañoo xër mais mais loo xër xër xër bi ak arrêt bu toll noonu 32 milliards. ak lu mbër sa mbër daan ak ñu daan ko. Ah moom droit jël stade bi du ko yàq. waaw xam nga ko yàqee tey ñu tëj asset bi. yow da nga bëri fooy bëri fi. Eh, waaw. te yow loolu la ngay wax mbër bi nga xam ne loolu moo def moom moo def loolu ak supporter waaw ni ñu ko ko jégal ak da juum na moom trop dafa juum kon gars yi war ñu ko dal si kawam quoi ko bàyyi xam nga mbër bu ndaw dafa métti war na ko ko jaar bilaay boo amee combat tamit loolu waa CNG loolu nga ba pare nga def bu ndaw ñu aj la loolu neexul leeral ni combat bi moom lu ñu ko fay lu ñu ko fay sax utilisé wul loolu da si yokkaat leneen loolu leeral maa ko doon déglu si benn kii quoi muy wax ne combat bi dafa jaay sax écran plat ñu ñëwaat bu ko aj xam nga loolu a neexul quoi waaw. waaw mais mais mais tamit xam nga tamit lu toll noonu tamit nga jël même boo daanoo daanu sa booy supporter war nga mën a wax ñoom ñu mën a yàq sedd. waaw mais xam mais xam nga tey tey bu nga baale si ñoom noonu si

jaxaw mu ngi préparé ndogu di séddale ay ndogu loolu kañ nga ko commencé yaa ngi commencé rek wala depuis daaw waaw loolu moom xam nga li ñu ko doon hmm. moom booy yëpp chaque at daa lañ def si koñ bi waaw. da ngay jël ndogu da ngay génn di séddale gars yi wala ngay ndogu boo xam ne pour la. ñoo ah, gars joxe ndogu ci seen hmm. ci kii yi. loolu ndox bu jotee dañuy dem mu tasaare ko si koñ bi. koñ bi waaw. chaque jour lay doon wala par par par benn par dimanche. waaw dañuy jàpp ay jours la. ay jours quoi. koor ñu échange si koor euh, koor ren ñaar yoon lañ def. koor koor ren. waaw gars yi ñu ngi koy door a def. bi mooy sa première fois quoi. waaw ah, mais daaw defal nga ko. daaw waaw ay jamono moomu Seydou Ndesane. ñoom si daal di naan yàlla mu koy yàlla yërëm. xaaral ko àjjana. waaw parce que bëgg nga waa SDE lu bëri sa sa xarit boobu. waaw Ndesane bi laa ay. boo sama combat da ci ñëw xam nga sonn si fu mu mujj bëri da si sonn wallaahi affaire bu garaaw sax. moom xam nga moom daanaka sax xam nga boo wax ci moom mooy loolu waaw. bàyyi faa la waaw. bàyyi borom daaru. bu ñaan tax xam nga lu bëri defuñu ko. waaw ay ndaw yi daan def ci doomu ji ak ndax moom. ndax moom moom moo doon moo doon gérer loolu yëpp. waaw xam nga bu wàccee te téere day bàyyi liggéeyam ñëw sama combat day da siy waaye Seydina Mohamed dana ko yàlla jaxaw maa ngi nuyu nag ñëpp gaanu baax yi xam nga ëllëg seen tamit waaw maa koy ñaanal jàmm ak gudd fan. waaw ndax sama combat bi lendemain bi ñëw na ba kër ga ñu jafe yaa ngi war a bëri nga bàyyi sa lépp xam nga ñëw ba gàlle hmm, taxaw ma ji mu jëg xaaral ci ndeysaan taxaw si li ma am yàlla xëy na dama gën góorgóorlu dama gën góorgóorlu roy si tànkam maa ngi maa ngi roy bu baax a baax waaw da ñaanal jàmm ak gudd fan bi mu ngi xujja maa ngi koy ñaanal jàmm ak gudd fan sama famille sama yëpp maa ngi leen saxoo di leen ndam di leen tiitaroo waa mbaaw tamit gis naa taxawaay sama waa koñ waa ñaax tamit maa ngi leen nuyu ñoom Njeri Njeri Faye waaw amut Omar Njeri Mor maa koy safoo di ko ndamoo di ko tiitaroo Baye Fall góor yàlla jantal maa waaw maa koy nuyu bu waaw Fata maa koy nuyu di ko ñaanal jàmm parce que yàlla su ma limee rek dañuy jëm waa sama famille ñoom ñoom Fatou maa ngi nuyu jàmbaar. teewoo quoi. waaw gars yi maa ngi leen di nuyu Dóor Faa maa ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar su ma limee rek nga xam ne xel muy fa waaw booy nag ñoom ma fi aar di def affaire gars yi xam naa ni léegi ci kanam lay tàmbali quoi mooy loolu noonu saxoon naa leen bu wér a wér a wér a wér. ñu sud bi. waaw sud bi maa ngi maa ngi leen di nuyu bu baax. waaw gars yi abonné. waaw gars yi abonné leen ci sud bi nag. Yoonu Ndam TV Yoonu Ndam TV. waaw sud bu bëri doole ngi nii nag. waaw ku koy seetaan sax da ngay am doole man mii gisoo temps yi dama am dis gan wala loolu mooy jël naa ko sama ma sëñ bi waaw waaye damay dox di ngan na ngandoon ndax sëñ bi dama jël abonné leen yoonu ndam yoonu ndam moom bu ko la xam ne ndam la ngay am man boobu ba léegi moom incha allah waaw macha allah dama ndam tuuti waaw